ñu nga xelaqu dikri def ca web bi jàngale yooyu télévision bi ak rajo bi ku mu ñëw sa kër mbaa sa gàmm mbaa sa màggal mbaa sa ziyaar da nga ca war leeral nit ñi yooyu waaye gërëmaa rek ak tag sa sëriñ rek maa baax maa maa fi gërëm sëriñ kenn ku ne maa baax ci yow sëriñ baax di bàyyi ko mu ne loolu léegi mat kon boog ñeenteel bi ci li ñuy faje doful iman mooy xilaqu dikr mooy zikrullah mooy toog ci barab tudd yàlla ba ñax te mën naa doon istigfar mën naa doon haylala mën naa doon benn ci siyaar yi nga xam ne moom la yonent bi daan jëfandikoo mën naa doon njàngum alquran njàngum alquran zikrullah bu benn féetewul kaw mën naa doon tam zikrullah amali te mooy fàttalante yàlla waarante ci yàlla zikrullahi soññe ci donte leen li ustaas Cheikh doon def ak mbokk yi donte leen li nga def sox ma rafetlu ko lool waaye xeet la ci zikrullah fàttali bi ñu joxe ci yàlla man damaa ragalul laaj lool lool suñu lii daal lépp maa ngi ne ñoom bu ñoom gari maa ngi tiitu tiit bu ngeen seetloo am na biir bi yàgg mun maa wax may tàmbali itam wax xaw naa sax suuf tuuti man damaa ragal ab laaj. su ma gisee fu ñuy laajee sama xol bi day këriñ dama ko ragal lool lool lool maa ngi ragal kenn joxe loo xam ne bii préparé ko woon wala mujjee kër loolu amu ko woon wala tax ko wala bu ko mu war ci nit da am kersa nit da am kersa nga dem ne sama room nit ki joxe kenn joxe naa ne loolu dina sax da nga jëm woon pour joxe da ngaa jógoon pour déglu conférence rek loolu mat naa bàyyi xel dëgg la il faut ñu laaj il faut ñu laaj ndax ñun daan laaj saxaaba yi laaj bi ko kay walaay def ci yàlla nag moom ci leen ko fekk waaye nag xanaa nu sàmmonte ceeg ay aadaab yoo xam ne rek dina tax ba duñu gêné duñu gêné duñu gêné mu daal laaj laaj laaj laaj daal wax laaj daal wax dëgg yow ñu loolu loolu dikku la jotaayu jotaayu fat laaj bu dëgg yàlla ci yoon bu dëgg yàlla ci yoon dikku la dikku la jotaayu fat leen ci diine ak daawa ak jàngale dikku la dikku yooyu yëpp baax yëpp baax na bu ko defee saxaaba yi dañoo amoon ay jotaay zikr yu mel noonu am na benn bis ku bokk ci saxaaba yi Hamza la daje Seydina Aboubacar Hamza ne Seydina Aboubacar man léegi ab naafeq la Hamza ne ko Seydina Aboubacar ne ko nga ne lan mu ne ko naafeq la mu ne ko ah li nga wax màgg lu yàlla mu ne ko mu ne ko nun buñ toogee fi ñaan bi saa la mu nuy fàttali yàlla di nu fàttali àllaaxira di nu fàttali àllaaxira ba suñu xol yi fees dell ak yàlla sooy xëpp ci yàlla te bu ñu fa jógee bala mo am bir bu yag rek di foog suñu soxna di foog suñu doom di top aduna loolu xam nga na fekk la waaw ko na ko ah man de loolu nag wax dëgg jaxal na dem ci yàlla na ci dem kala da dara lu may saxaaba yi buñ mosaa tok yant bi de nekk jotaay dik yant bi da len di toyalal seeni xol ci yàlla da len di wa di leen nettali xew-xew yowal qiyam di leen nettali xew xew nit xeet nit bi njëkkee ak fa njaam ak seen yenen di leen nattali itam euh, euh, melokaani yàlla ak ay màgg ak màggam ba loolu day yokk seen leeru gëm yàlla mu ngoog am na ku mos a jóge ci benn jotaay ci jotaay yonent bi daa waat ne sallallahu alayhi wa sallam daa waat ne duutu dog bëccëg bis bu ne day woor te duutu nelaw guddi guddi gu jotee day ji di ba set boobu décision la jël dafaa jóge rek ne man jeex man kay ginnaaw lii ma dégg tey su ma jógee fii duutuma noppi ci koor bis bu ne damay naafil te guddi gu tam damay woor dama damay damay julli bët ah waaw bu dee guddi gu jot julli bët set kon soxnaam na mbaa sëy bi tax loolu loolu sa bakkan sa diine dafa am ci yow xaq sa bakkan am ci yow xaq sa njaboot am ci yow xaq joxal borom àq dina àq loolu bu ko defee xam dara nag moom bi mu dajee Seydina Abubakar ne ko man ab naa feq la ab naa feq la eh, Seydina Abubakar ne ko ne dem ci yonent bi bi ñu demee Abubakar ne yonent bi Hamza de moom nee naa feq la te xam naa ko ñun ñëpp na naa feq la ndax nee daal bu ñu toogee fi yow ba nga fàttali ñu yàlla ba xol yi tooy ba ñu dog ci buñ fi jógee ci yàlla rek la ñuy nekk bala mooy yàgg lu delluwaat ci kafar suñuy jabar ak foor suñuy doom ak toppatoo ci àdduna te loolu kon may maanaam ñu ñu ko defal ci ñun dañ na yonent والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرسكم وفي طرقكم ولكن يا حنبلة ساعة وساعة دفنا جن النالة كي بور دي خم نسنا بكن كي رخم لنا لنين دي دف لنين دي نسك سمان كي مولين دي فاتي ak li ngeen di nekkee ci jotaayu zikr yi di def su ci moo dëkk waxtu wu ne kon léegi malaaka yi seen wen ngeen soxla ci seen lal ak ci biir yoon yi ngeen di jaar dañu lay ngeen waaye loolu mën ta amee noonu waxtu nga jaamu yàlla waxtu nga foog sa njaboot mu nga kon loolu nga xamante ne zikrullah dana yokk ak gëm yàlla bu baax saaba yi seen yooyu nga xam ne moom lañ daa di fàttalante yàlla di daawante jalsatu iman ñu ko tuddee woon moo tax ba daanañu wax iblis bi naa nuumil saa taal nuumil saa mooy kay nu beesal suñu gëm yàlla ak as niir te yéen man ngeen ko yéen a koy def sax yéen koy def bu fekkee ne bi yow amoo ci xam-xam lu àgg ci foo mën a beesal a gëm yàlla sa mbokku julli waaye am nga fi kàddu gi saa boo xam ne bii. dégg nga mu wax ci ab diggante loo xam ne wér na ndax dëppoo naa kitaab ak sunna te yëngal na xol ci yàlla wala jàngale na diine nga wut maa defoon bu baax teg ko ne say bokk kaay leen ñu kaay leen ñu suñu gëm yàlla yàlla na muy fekk waxtaan wu bees yàlla na fekk muy waxtaan wu yàgg waaye rek li ngeen jublu mooy beesal gëm yàlla ji ngeen toog déglu moo xam kaset ba kasetub xasan ayub la moo xam kasetub cheikh kist la ñoo xam kaset bu ma doon ba wolof ba pël ba naar ba tubaab ci kaset yi nga xam ne day jàngale diine di beetal gëm yàlla loolu tam bokk na ci xelafu zikr yi jël sa iman yi yooyu nag di ko fekkee laa ne bokk na ci li jiib war a def pour mën a faj goppal iman juróomeel bi mooy julit bi na baril al amalu salih ki nga xam ne ci feebar goppal iman da koo dal na baril jëfi yi muy def mu ngoor ngay def ay xeeti ci yaaba yu bari yu bokkut comme ni ko saxaaba yi daan def benn bis yonent bi daa xëy laaj saxaaba yi ni leen man asbaxa minkum alyawma saiman qala abu bakrin ana qala faman tabia minkum alyawma janaza qala abu bakrin ana qala faman at'ama minkum alyawma miskinan qala abu bakrin ana قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع fi mri'in illa daxala al janna rawaahu muslim yonent bi daa xëy toolu saxaaba yi ba mu yàgg ñi tey ana ku ci xëyee koor tey yéen ñi toog ku fi woor ku fi woor Seydina Abubakar ne man de damaa woor <laughs> ah Seydina Abubakar daa woor mu ne waaw tey ana ku ci fexe ba fekk fu ñuy robe ab néew mu fekk jullee ba gunge ko fu ñuy robe ab néew nga fekk jullee ba gunge ko ndeke loolu ci yaabal jëf ju baax la si daaw ko nag man def naa ko tey mu ne waaw ana tey jii tey tey koo ci xam ne kii làmb naa poosam jox miskin tey te naa ko ne man def naa ko tey way danaa ko jàmbaar la de mu ne waaw ana tey jii ku ci seeti ku feebar ku seeti ku feebar te naa ko ne man ci bañ xëyee rek ak heure boobu te naa ko daa xëyee koor fekk na ab néew bu ñu doon jullee bokk ci gunge ba jox na miskin te itam euh, euh, seet na ko feebar yonente bi ne ñeenti yooyu rek ku koy boole ko dama àjjana sallallahu alayhi wa rek mooy ab jullit daa war a fexe ba waxtu yu néew wala benn bi mu def ci ay tuyaaba yu bari bi dugg waaye topp sa vingt quatre bu xat topp sa ñàkk sa ñàkk jot bu xat ba tax bu ñuy jullee néew amoo jot doo ko fekkee منو ورطة من خلاب من دار ورطة لو منو جه مسكين بزن وقت فيبرين غا باي دولر غا رجع ممسيون نفي من بغنا سيبسي واي problem يما جاب أتنا بسي فخر با أم أي دي في نيو يبال بغنا ما دي في نيو يو نفس فخر با بيشي سيئة سيئة سواق أقلو ووت ووت أدنا لو يوم يوم بش أدنا نفخر با بولا تجي في نيو يو يو jëf yi boo ko dee def nga sàmmante seet yii di ñëw awalan bu ko waaj jëf ju baax kenn du ko waaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ak tuadatu fi kulli shay'in illa fi amal al axir yonent bi nee na waaj lu ne kay ci lu ne baax na ba mu def kay ci jëf yoo xam ne bii da lay sawee àllaaxir kon bu ko waaj ñaareel bi mooy boo ko tàmbalee bu ko bàyyi jëf ju baax boo ko tàmbalee bu ko bàyyi yonent bi nee na boobu dañ ko laajoon ay amali ahabu ila allah qaala adwamuha wa in qalla dañ koo laajoon ne ko mboolem xeeti jaamu yàlla yi ban la ci yàlla gën a bëgg mu ne xanaa ba ca gën a sax doon fi bari kon bu fekkee yow da ngaa woor tey al ayyaamul biir fexeel ba saxal bu fekkee ne bii da ngaa naafila dara lu jiitu muy julli si wala su demee noonu fexeel ba saxal loolu def ci lu baax daal kanam kanam da ngaa dindi jox miskin fexeel ba foo amee rek ñaar dërëm yu wële rek mbaa ñaar téeméer ngir ñu tam miskin ngir yàlla moom ñetteel bu may ngir sa góorgóorlu bu baax nga di sa góorgóorlu def lu baax loolee bu baax a baax a baax bu ko defee boo sa góorgóorloo te saxoo ko mooy tax mën laa fajal sa doful iman faj goo xam ne jii duñ ko dellu si waaye bu fekkee da nga koo def tey ëllëg nga bàyyi ko dootul iman du mën a faju wala bu fajoo itam day dil tubaab mu wax ñeenteel bi mooy bul ci def lu ëpp loo xam ne sa bakkan du ko attan kon day mujj nga nga yëf yi sàpp la boo koy génn doo ko tey te loolu yonent bi da koy tere sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ba mu déggee abdullah ibn amr ibn aas mu ne man daal ginnaaw li yonent bi wax moo ko wax tey daal lu ñu fàttali ci diine man daal jël jël naa décision bëccëg bu jotee damay woor guddi bu jotee damay fanaan ni julli ba bëccëg te ren kat tàmbali ko def ko ay ay bis yu bëree bëri yonent bi gisatul waa ji gisatul saxaaba boobu yonent bi moom ana Abdallah ibn Abdul Aas ne ko moom day keroog ba nga fi waxtaanee sa waxtaan woowu yi daal la fi jógee mais duutu dog koor bëccëg te itam guddi bu jot day julli boobee ba léegi duutu génn de mu ne woon leen ñëw na ko yaa yaa wax loolu mu ne ko wax mu ne ko bu wax bu ko def loolu mënoo del woor di dox di julli di nelaw te xam ne sa bakkan da am seew xaq sa borom am seew xaq sa njaboot am seew xaq joxal ko ne àttan bakkan bi da nga ko war a yar ci diine teg ko la mu àttan waaye nag bu ko def lu mu àttanul kon day dox juróomeel bi mooy bu fekkee ne bi moo tax yonent bi wax ne ci ak gox ne buxaari moo ko solo uklufu min al amali ma tutiquuna fa inna allaha azza wa jalla laa yamallu xatta tamallu wa inna ahabba al amali ila allahi azza wa jalla adwamahu adwamuhu wa in qalla rawahu al buxaari nee na na ngeen tagoo ci jëf jëfi yàlla lu ngeen man ndax yàlla feet tayyiwu leen du tayyi feet yokkatu leen yàlla du yokkat te li gënal yàlla ci ay jëf mooy li ca gën a tax donte lay bari mu ngoog juróomeel bi mooy li ngay def bu la faatee na nga ko dabaatal jëf ji yiw joo tàmbali ba saxal ko bu la faatee na nga ko dabaatal bu fekkee ne bi masalan da ngaa bëgg a beesal sa doof sa iman da ngaa bëgg a faj dooful iman saam nga jël alquran di ko jàng nga am nag benn dox ci alquran naan nga si gis yow waam di ko jàng am benn gis nga am la gàllankoor feebar mbaa lenn ba tax jàngoo ko na nga fexe ba fay ko jàng ci beneen heure waaye loo xam ba tàmbali na nga ko karam juróom benneel bi la nga def ci lu baax bul dogu ci na yàlla nangu na ko na nga boole yaakaar yërmande yàlla yaakaar na nangu na ak ragal yàlla gën la ko di xamoon nga xamoon nangu mu ngoog loolu war nañoo sàmmanteeg moom ci xeeti jëf yi nga xam ne moom lay jëfal yàlla subhanahu wa taala bu ko defee juróom benneel bi médicament nag ci médicament yi ñuy faja doofal iman moo di jaamu yàlla yi nga bari xeet ya te kooku xaw naa ba bële di ko ne wax ci ci ñeenteel bañ xeet ya ndax yàlla sa bakkan bañ a tam bañ a bañ yokkat wenn xeet woo taxoo juróom ñaareel ba mooy nga ragal mujj gu ñaaw moo gaa yi kenn ku nekk ci ñun lu doon ak mujjam ndax xam nañ ko nañ ciy bàyyi xel nañuy bàyyi xel ci mujj gu ñaaw ñu ngoog boo ci dee bàyyi xel di ko ragal di ko moytu loolu dana la xiital ci ay jaamu yàlla te loolu dina beesal sa gëm yàlla mukk ñaaw nag lu koy waral ya koy waral moom bari na waaye dooxul iman te la bokk dooxul iman ndekete day war la mujj ñaaw ba tey bokk li liy war a ñaaw sëgg ci ay mooy yàlla rek koo xam ne ci daa sàggan lool di mooy ndigalal yàlla rek loolee day waral dooxul iman te am na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi ay xew-xew yiy wane mujj bu ñaaw am na ci benn waay benn waay boo xam ne bii dafa nekkoon ànd ak jullit ñuy jihaad ci sabilillah di xeex mu doon jàmbaar lool ci xeex di rey rek di rey ci yéefar yi benn kenn ñëw net la ko yonent bi ne ko diw daay te kooku kat li ñu ci moom mooy moom da jàmbaar mu ngay xeex rek ma ngay rey yéefar yi aw rey woo xam ne ma ngay jaamu yàlla ci jihaad jaamu koo xam ne kenn musu ko gis yonent bi ne moo nag kooku de ci waa safara ah, ci waa safara la ci moom jàmbaar la ci jaamu yàlla jàmbaar la ci jihaad fi sabilillah sahaaba yi fahmuñu loolu waaye ñu konti ci xeex ba ñu demee ba ci mujj yàlla dogal waa jooju ñu jam ko bu blessé biñ ko jamee dafa saalit xam nga lu mu def def ko ab xeeñam rek teg ko ci xol bi rek bës dafa xarul ku xarul lu ci yàlla wax ah safara kon kooku ak mu dem moo ñaaw nit bu ñaaw googee ko dal jantalu na ay jëf yu mu jiitu lan la ci dundam ca bu jëkk lu jiitu xaraba di ñëw moo tax ba mujj gu ñaaw mat naa bàyyi xel boo demee ci téere boobu ñuy wax adda wa dawa wala aljawabu shafi لمن سأل عن الدواء الكافي عن الموت ابن القيم موكو دين نانا نفسنا اي نيت ньо خامني سيدي موسى دا نياو مو نك ليجا جن وا جو خامني دا فا دم باي خار خال تول سي فيكا سوكورا كو تول سي سوكورا سو فك لي موجا واخ موي لا اله الا الله لنجي واخ اي لا ما عجل نانا ديواي نك daa toll ci sukuraat nit ñëw di ko fàttali baatu laa ilaha illallah nee na waaye daal wuyu ko moom daal dane <laughs> loolu de mënu ko wax mënu ko wax bismillah jëm mënu ko wax xam nga daa jël ko de waaw bu fekkee ci dundam laa ilaha illallah bariwul ci awlaam bi tey du woon programme dundam kon daanaka moom xamul laa ilaha illa allah du ko mën a wax nag ci waxtu woowu mu ngoog keneen nekk di xar-xarle di sukuraat ñu ne ko waxal laa ilaha illa allah mu tàmbali di way di way wax leen ma rek li ngeen xam ci kuy xar-xarle di di sukuraat ngeen ne ko wax waxal laa ilaha illa allah muy way way yuusu nduur ah muy waa muy way way yuusu nduur fàttali leen nga wenn way ci way way yi tudd wax leen ci wenn bëy aha ah ah durima ah, ah. waaw muy muy sukuraat di wax durima ñu wax ba waxal laa ilaha illa mu naan durima durima tin tin tin moo ndax da ngeen am ci moom rafet njort moo ndax kookee seen njort rafet na ci moom ah loolu day kat bu fekkee nit mun ak ak dundam lépp ma nga woon ci danse bi adduna lépp nga woon ci ba ah moo bu dee bëgg day itam la mu njëkkee woon ak la mu njëkk loolu la loolu la benn commerçant di waaj di waaj xam ne di moom commerce bi daal moo doxoon diggam ak jaamu yàlla bi mu demee bay xar-xar la di sukuraat ñu ne ko waxal laa ilaha illa la mu daal wax commerce ba mu tàmbali di ko ah eh daa waay kaay kaay xool coupon bi coupon bi coupé bu bees la eh, kaay bëtt ko kaay xool ni mu tolloog yow kaay ma jaay la ko eh, kaay njëkk yomb na loolu lay wax ba dee. benn jaaykatu riba ba muy xar-xarle moom di sukkaat ñu ko wax laa ilaha illallah waxal laa ilaha illallah mu naan ku ñëw ma lebal la fukk nga may fukk ak benn ma lebal la fukk nga feen fukk ak benn loolu la def moo tax moo tax nit ki lu mu mën a def na ci boole bari tudd yàlla lu mu mën a def na ci boole bari jaamu yàlla bu ko defee bu dee ñëwee xol bi mën a dem ci yàlla yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli sabiti fi lxayati dunia wa fi laxira yàlla nee na alqawlu sabit may baatu laa ilaha illa allah dama ci dama ci saxal dama ci nargan mi nga xam ne ñi dama ci saxal dëgëral mi nga xam ne ñi gëm nañu yàlla تي ادنا تي الاخر واه تي ادنا تي الاخر تي ادنا موي بو نكي تي لا اله الا الله گم كو ديكو ذكر ديكو فكر ديكو جيف موي سا بروغرام دي في موي سا ليكي دي سو سولين دي سو نام دي سو بريتيكي تكيرو جبر نينتوين تيتلين لا اله الا الله دي سا بروغرام دي لب bu ko defee boo amee problème yàlla da yàlla dëgëral si baatu laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah ata jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu fekk jërëjëf bu fekkee ne bi saxaat bi yaa mooy loolu wa fi l axira wa fi wa fi l axira mooy bu àllaaxira ba nga dugg ci bàmmeel bi malaaka mi ñëw malaaka mi daa am ay question yu muy laaj ba laajee boo tontu tontu yi jub nga dem àjjana bu dëngee nga yem safara balaa fi lu muy laaj mooy kuy sa borom kuy sa borom luy sa diine loo xam ci Muhammad ñett laaj ji rek waaye bu fekkee yow yaa ngi doon dund laa ilaha illa allah boo tam bu malaaka mi laajee laaj yooyu yàlla day intervention direct lay def ci yow nga la waxal laa ilaha illa allah nga wax laa ilaha illa allah mu jeex yàlla teg ci wa yudillu llahu zalimin yàlla day sànq tooñkat yi bi nga ñu sàkkee ci àdduna ci ci àdduna mooy nga dem bay xar-xar la te wax ne ku ne laa ilaha illallah mu mujj sa gimiñ da ngay dem na bu fekkee moom nga mujj a wax te sukuraat yow nag nga bëgg koo wax te fekk yow laa ilaha illallah woon sa programme dund da wax ko woon zikkar yàlla du ci la nga doon def rek def rek ngay kin diñ ki nañi di yow yuusu duur rek ba dee naa ngay wax kaay xool coupon bi nga ñëwee ci yow rek ba dee bu dee ci bàmmeel bu dee ci àllaaxira malaat mu ñëw bu ne nee ana fu sa borom nga yaakaar ne yàlla dalay bàyyi seen xel déedéet da lay sukuraat yàlla bàyyiwul ak seen xel daa këf xel mi indi la nga doon dund moo xam riba la moo xam laa ilaaha illallaah la moo xam jaay jënd la da nga doon dund daal ba mu occupé la moom la lay indi naka noonu boo nekkee ci bàmmeel li nga doon dund yaa malaat mu ñëw ne ana fu sa borom nga ne ko un ah, ah. ana ko sabar nga ne un eh, un eh. nga ne ko yow boo ko ne yow nag kay xam ana lu sa diine nga ne un un doo xam lay wax amoo woon diine waaw daal si jaxanaa boobu laay si ana loo xam ci waajal ñu wax Mouhamad nga ne ah da wax dëgg daal laa ko dégg daal xaw ma xaw ma ci ma loolu lu bari waaw da ngay wutug njàmbur da ngay wutug njàmbur te yaa ngi def xay su boobaa mu nga yàlla musal mut gu ñaaw lu mate muslu yàlla di bàyyi xel nit ñaaw ak di ko moytu ëllëg te xam ne ni ko mën a moytoo mooy baril jaamu yàlla te xëy soñ bismillah loolu bokk na ci li nga xam ne dana faj bokk bi ma bas lay fàttaliku dee yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallama aksiru zikra haadimi ladat yonent bi nee na ngeen bari li ngeen di fàttaliku dee mu ngoog xam ngeen ne moos dee bu dee faral di nekk sa xol kon yenn itte yu bari yi ak yenn soxla yu rëy yi doo ko tal yenn bàkkaar yu rëy yi itam doo ko ñeme waaye boo fàttee dee loolu la ëpp naa def bu ko defee boo bëggee fàttaliku dee deel ziyaara ji bàmmeel yi deel ziyaara ji bàmmeel yi dee leen dem bàmmeel yi Dakar bu mu tudd yoof dee leen dem yoof bu ngeen demee ngeen taxaw xool bàmmeel yi ñu ñu ñu ko suul ngeen fàttali ko ne ñoo yoroon Ndakaaru caat yi la paase ak siècle yi la paase ñoo ko kumbaloon ñoo yoroon taaxi kaw ya ñii ñoo ànd nag Lamine Gueye ànd ak Blaise ñoo fi nekk ak De ak ña ko jiitu ñii ñoo bokkoon ci ci ci ci gerewu cheminots ya ko jiite woon. ñii ñoo doon borom alal yu bari ak borom xam-xam yi ñii ñoo doon mbëri làmb ya ñii ñoo doon jigéen ñu jongama ya ñoom ñëpp tey dee nañ suur nañ leen yow nga xam ni fii ngay mujj nga fàttali ko dee loo bari bari xam-xam loo bari bari alal loo bari bari mbooloo faaw nga de ñu suul nga fàttali ko loolu loolu moom la ñuy doyee ziyaara bàmmeel kenn demul ci bàmmeel ñu toj toj di weddal defe na dañ fay fajee aaj déedéet bàmmeel dañ fay fàttali ko dee يلنت بي صلى الله عليه وسلم دا وخنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرة رواه الحديث يلنت بنانا صلى الله عليه وسلم تروان نال زيارة أي بامير ما لن تروان دمت أي سك لا بيجوخنا لن تنبيل زيارة القلب زيارة دخل دمت أي سك dina fàttali dina la fàttali ak eh, àllaaxira mu ngoog kon boog dem ci ay sët dina nooyal ak xol dina tax rongooñ rongooñ mën a jëm ci ay bët dina fàttali àllaaxira kon boog di leen dem ci sët kon dem ci ay sët ngir ziyaara ngir fàttaliku àllaaxira ngir sa xol nooy ngir sa rongooñ mën a génn nga fàttali ci yàlla loolu bokk na ci li nga xam ne dina tax dox ko boo ko demee waaw wax ma nag boo ziyaare sëgee boo demee looy jàng boo demee looy jàng déet booy ziyaare laa looy jàng laaj bi dañ koo mos a laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj bi ku ko ko war a moom moo ko war a tontu fitna Aïcha moo umm moo ko ne su ma demee ci ci ma demee ay bàmmeel li may li wax mu ne ko da wax na السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون مسلم مقصد فنبا نعم قربو كان فريكي مقصدين مقصد بوي زيارة بامل بنام مجاع تبوي زيارة بامل بوي موي ويجن لقلي سيدنا محمد دي وحنا كرا زيارة أي خبرو jox naa leen ci ndigal léegi ni ngeen ko def ndax dina nooyal ab xol te itam dina jooyloo ay bët te dina fàttali allah nga am pas-pasu ziyaar je ba mel ndax nga ame fa ñett yooyu yi di lan ndax nga ame fa xol bu nooy ndax nga ame fa jooy jooyal yàlla ñu fàttali ko allah ak kii ndax nga ame fa ak fàttali allah mu ngoon loolu noonu la ñuy ziyaaree bàmmeel noonu la yéen di defal juróom-ñeenteel bi moo di del faral di fàttaliku manazilul axira manazilul axira mooy mbokk juut yi ndax xam ngeen xew-xew yi nara xew yawmal qiyaam xew-xew yi nara xew yawmal qiyaam di leen ko laaj alquran alquran wax na ci lu bari bu ñu demee ci suuratu qaaf qaaf wal qur'an al majid su ngeen demee ci ida waqaat al waaqia سنين دنا لا أقسم بيوم القيامة سمين دنتي الحاقة ما الحاقة سمين دنتي والمرسلات سمين دنتي عما يتساءلون سمين دنتي ويل للمطففين سمين دنتي إلى الشمس كورت أكثر أكتالي دمك دنا تفك مي وقت نفسي خيو خيو ينا لخيو يوم القيامة ndekete yow al qiyam bu yéen ci politique fii da ngeen am droite ak gauche de am na ci politique de droite ak gauche mooy lan نكتي ادوات الجوش لك يوم القيامة القرآن نينا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في كبر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة أصحاب اليمين وعند الجواب والآخرة وعد رواسي كل تيس أقوى بوس نقوى بوسوي بنتوبوا نقوى بوسوي waaw balaaxira waa droite ak waa gauche ci politique ñëpp waa gauche la ñu tudd ñu tudd léegi dëgg dëgg rek aw yamin ana luy mbiri waa ngay joor yàlla nee na fii sidrin maxduudin wa talxin mamduudin wa zillin mamduudin wa maa'in maskuub kër yi sedd lool furu yu neex lool te kenn du ko jënd man bala maa mos doomu doomu banaana dangay dem marché ci leen mbaa ma dem nii bu laa bëggoon ci biir Ndakaar nu mu tudd sant ñeeri sama xaalis bépp pli futi wax ko ma door a ma tuuti raisin tuuti poire ajjana nag nag poire gaa fa ne xalak sag guy waaw kenn du ko dank kenn du ko tere yaa ko fa ba raisin gaa banaan baa nga fa xaal gaa fa sag guy te kenn du ko bay moom kenn du ko xalaf aajuwul bala boo taa boo ko ngoloo rek mu dakk si sedd guy jege suuf lool neex lool te kat boo ko jëlul kenn du ko jël mu nga ndox mu sedd guy kër yu neex lool fii zillin mamduudin wa maa'in maskuubin wa faakihatin kasiira fruit yu bari laa maqsuu'atin wa laa mamnuu'a kenn du ko dagg te kenn du la ko tere wa furushin marfuu'a ak ay lay yu kawe ay jongama yu rafet nekk ndekete yoo ku yàlla nattoo bëgg jongama fexe ba def àjjana sunu jongama yi dañoo tàng bopp dañoo mën a xuloo dañoo bari laaj indi andi andi xaalis indi lii indi laa indi lële alaaka nag moom jongama dafa nekk du ñu mer du ñu fay ci biirum néeg du ñu fay ci biti du ñu indi dépense du la neex rek suba ngoon bu dégg الله فرش مرفوعة الله إنا أنشأناهن إنشاء من يلا نول الله لول ما ينبري ويمين وعبد ما يجيبني ندق بتاع خلاص إن شاء الله بولا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم yàlla nee na waa droite nag waa waa gauche nag waa droite bi ne waa gauche nag ñoom ñooy seen mbir maa asxaabu shimaal ñoom de naaj yu tàng jër safara su tàng jër yar yu tàng jër ndox mu tàng jër malaaka yu duma rek xoolal ab yéer xoolal ab tay-tay xoolal ci bopp ci gauche dañ koy fab yëkkati ko ba ca kaw ne ko kenn ndax ci biir naaj bi mu xalambaay xalambaay wuti biir daal di jàmm lu mu gën a sori mu gën a tàng xam ngeen nag kàmbu safar loo gën a xóot mu gën a tàng rek lu mu gën a sori mu gën a tàng bu ko defee xóotaayu kàmb genn kàmb bu bokk ci kàmb naaru jahannama yonent bi misaal na ko nee na daan ke sànni ab saay-saay mu xalambaay juróom ñaar fukki at muy xalambaay loolu am bu dee dëkk subhaanallah subhaanallah malaaka yu dóor jaan yi mat yi di set safara yi tàkk mu yóobu rek ana mbooloo ana alal ja ana daraja ja ñàkk na lépp ñàkk na lépp malaaka yu dóor rek malaaka yu dóor rek malaaka yu dóor rek muy yóob di yóob di yóob di jooy day dem ba maram maram maram maram maram ba mar yi du du ko mën a supporté mu ne ay sarax yi ma man naa maa ngi dee ay sarax yi ma damaa mar sàmbaram yàlla daal jox ndigal malaaka yi ñu andil ko ndox moo xam ne dafa tàng ne beteex buy nguyal ndox moo xam ne ndax li ko def bu ko tiimee ak kanamam bu ko tiimee di ko bëgg a naan bu dee dëmm deru kanam gi lépp ay def du pét na ci bëpp te faw mu naan bu ne day nañu ko ah doy déedéet yaa ko laaj il faut nga naan boo ko naanee butit yi daf ko lakk lii la dencal mboolem mi nga xam ne day jàpp ndigal lii lépp liy bokk ci manaasilul axira ak jullit di bëgg a beesal gëm yàllaam bëgg a fa dootul imaanam wala am ku koy leeral yooyu di ko fàttali mu di ko fàttaliku ndax mu mën a am lu mën a fekk xelal bu dootul imaanam

أمنع التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة قلت بي موقف جلد ويتير يبتير بسنة بارته قوجب لما يجانغ الجلد خيوسة ويلا لك وتعالى خير تير يتخذ الكوام كنت جانغ أنا في نفسك بأم تير يولو في يجانغ فرانسي جميع لا شيء بخمدر تير يولو أمن في فرانسي مبيك لسي أمن جلد كبير جانغ أب جلد دي خم دينين خيك بي جانغ لي مور جانغ سجينين وعي جفا دي أم سندقين تير كتب إسلامي بوكنا سلي ورا دوفل إمام جلدان danoo jàngul diine jàngul islam xamuñu dara ci lii may wax ci manajul axira defe na la xaw ëllëg xamuñu ko yàlla boo ko ñemee da nga ko réer waaye boo ko xamee faw nga yenn fu la yenn lor faw nga ragal dëgg la nit moom faw mu nekk nit faw moom ay manqué manqué waaye nag dana am ay limite ak ay yemukaay waaye nag boo xamul dara ci yàlla xamoo dara ci manajul axira xamoo dara ci màggam xamoo dara ci alquran yow doo am lenn lu limite mbaa lenn la baara ngay def ay njaaxum rek ba ba ba ba ba adduna xëy tukki rek moo tax il faut ñu dem ci diine ci jàng bu ko defee fukkeel bi yi nga xam ne dana faj jooful euh, iman mooy zikr zikrullah mooy bari looy tudd yàlla bari looy tudd yàlla ñenn ñi ñu koy def ci ay baaraam ñenn ñi def ci kurus itteelu ma may wax kurus baax naag bon naag ay baaraam ñu ko defal jàpp naa ne ku koy def ci baaraam mu ngi def lu baax ku koy def ci kurus mu ngi def lu baax boo yoree kurus ku la gën yor na kurus fuuf boo ko bañ a yor ku la gën bañ na yor kurus fuuf kon ku mu neex rajal ci kurus ku mu neex rajal ci ay baaraam ku mu neex bu dee yor kurus jël yor ci ay baaraam almuhim li mun ta ñàkk dara mooy zikrullah zikrullah moom yàlla da koo santaane yàlla daa wax ne yaa ayuha alladina amanu zkurullaha zikran kasira yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla bëgg nga dénk ma ci diine ji te bu mu bari ndax man taxu maa am solo lool mu ne ko laa yazaalu ko rasban min zikrillah maa ngi lay dénk leen sa làmmiñ bi bu mu fen di mukk ci tudd yàlla fu mu toll nii tudd yàlla tudd yàlla dina gërëm loo yàlla dina dàq seytaane ay suuti dina dina tax yàlla gërëm la tudd yàlla dina tax yàlla gërëm la gaaw a am ijaaba ci ñaan tudd yàlla dina dàq seytaane xam ngeen seytaane li mu gën a ragal mooy tudd yàlla tudd yàlla dina ya. dind ay tus mu ngoog tudd yàlla dina yokk ya, wërsëg tudd yàlla itam yàlla ya, jox na ko ñi nga xam ne bari wuñu alal ba tax mënu ñoo fare ci yoonu yàlla lu bari yàlla ne remplacé naa la ko tudd yàlla te ñàkk tudd yàlla wala li ngay tudd yàlla manqué دنا ورا الخلف وو دنا ورا ضعف الايمان ما تخبر رب تبارك وتعالى واذكر ربك اذا نسيت لما تكون صبرا يا الله بو فك امنا بن واي بو في حسن البصري رحمه الله نيكو دما لي توب سما خول بو دغر دما لي توب سما خول بو دانك من خول بو دغر دا نكوي نويال في تبيالو mu koy newal tudd yàlla mu ne ko ab xol saa bu dëgëree càggantee koy dëgëral waaye la koy nooyal si boobaa mooy tudd te tudd yàlla boo ko nit ki bàyyilee mu mujj seytaane yi ragal ko yaakaar naa loolu oustaz Seyba mën na leen tey wax jinne li muy saay saay saay saay dafa ragal kuy tudd yàlla te jinne li muy sayloo nit noonu la nit kuy tudd yàlla di sayloo jinne dañ ci dugg islam nit ki dana àgg ci ci turu yàlla ci tudd yàlla foo xam ne bu ko junne jegee day day day def fëdd ci suuf di kat di kat moo demee jinne yi wër ko ndeysaan lu ko daal ñu ne ñu nit ñee ko sant nit ñee ko sant nit ñee ko sant te fekk nit ñi ko sax sàkkuwu ko jubluwu ko xamul ne am na waaye yàlla ja tudd yàlla ji moo tax ci làmmiñ wi sax ci xol bi sax ci ruu bi sax ci deret ji ba lu ko jege yàq te ñi ngeen gis seytaan di leen gestu ñuy dox di say ak di ak di ak di ñàkk seytaan jinne yi di leen sadd dañoo sàggane tudd yàlla rek dañoo sàggane tudd yàlla rek ginnaaw say say ba moom spécial si la ci jinne yéen seen mbir mën na leen ci wax lu bari su leen bëggee mucc ci jinne daal da ngeen a ragal jinne fonk leen bikrullah tàmbalee leen ko nag ci dëkk mu muqayyad ba ci dëkk mutlaq dëkk muqayyad mooy azkaar yi nga xam ne yonent bi daa wax ne sallallahu alayhi wa sallam nees koy def ci munaasabaat yi dëkk mutlaq moom mooy yi nga xam ne yonent bi joxe na ci ndigal waaye wutulu ko ab lim wutulu ko ab kayfiyee mu wax bu ko defee la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir ku neex ci yéen ne ko jël yoon bi daa ko joxe muy abdi pour loo bari ko loo man boo defee tey téeméer boo lay nga def téeméer subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ku neex ci yéen ne ko jël ab dikrullah yéen bi moo ko joxe bari ko mu ngoog la hawla wala quwwata illa billah ku neex ci yéen ne ko jël dikrullah la nga bari amul ab mu ngoog ak yeneen yu dul yooyu te fexe ba ban istigfar استغفار من استغفر الله مو جينا داك امنا استغفر يبار استغفر الله امنا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه امنا اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي عم السيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت بوب ما سيد الاستغفار ينجب من بوب باي سولو غني اك وون غني موخ اك جام داي باري جيت سيدنا باري استغفار تايتام نفخه بابا نوري جولي تيانتي صلى الله عليه وسلم bu ko defee azkar mutlaqa yi loo ci def lu baax la azkar muqayyada yi mooy tam nga ci góorgóorlu bañ ca manqué dara mooy la yeneen ci di wax ni ñu koy def da ko tàmbalee ca sa lay yeewoo ba ngay tëddaat ci bi dafa mu programme zikrullah muqayyad tàmbalee ci fi ngay fi ngay yeewoo boo yeewoo looy jëkk a wax boo yeewoo ci saa si am ay azkar yoo war a def bu ma cee guddal ndax moo nekk suñu sama conférence incha allah ci dimanche bu mujj ci koor bi fële ca tëngee waaye boo yeewoo am na zikr boo war a def booy sol say dàll pour dem ci douche bi am na zikr boo war a def booy sol sa yére am na zikr boo war a def booy tàmbali naafila xiyaamu lil am na zikr booy def boo boo booy boo xëyee booy lekk ndékki am na zikr boo war a def boo lekkee ba noppi am na zikr boo war a def booy génn sa nekk pour dem liggéeyi am na zikr boo war a def am na noo ko war a defee boo demee ba ci yoon yi am na zikr boo war a def bu fekkee ne bi yaa ngi génn si am na zikr boo def boo dugg ci kër mu nga lépp lay def mooy dugg marché am na dikk ba war a def boo déggee ganaar gu boo déggee mbaam mu ŋaax boo déggee xaj wow am na dikk ba war a def boo toogee boo to nekk ci mbedd mi koo xam ne kii balaa koo dal am na dikk ba war a ba tam bañ koo boo déggee ku tifli mbaayoon nga tifli am na dikk ba war a def loolu yëpp dafa ma tax boo dee wax sa wata am na dikk ba war soo bëggee muccee accident yu bare bare bare solka zikrullaa ci biir wata jaar ci biir waaw